diine ak état ay séexandoor lañ mënuñoo taqale moo tax ñu ne président Macky Sall euh, moom dugal na imaam yi dugal na labb yi dugg na ci jàkk yi dugg na ci église yi dugal na ci loxoom kon nag li ñu war moom ñun ñi nga xam ne dañuy di jiiti jiite dara ci lislaam mooy nu dimbale ko te jàpp jàppale ko suñu liggéey yëpp nekk ci jéem koo dëgëral ci zahir ak ci baatin nañ ko ñaanal mu sax fii dëgër jàppale ko waaye ñu jàppale ko ci biti itam ànd ñi ànd moom sànnil ko carte loolu mooy li nga xam ne moo ñu war mu di cant xam nga cant euh, sant nit ak gërëm ko euh, duul wax nit boo ko gërëmee nga sant ko jëf lay doon jàngale alquran imalu ala daawuda shukran sant googu amal la da ngay jëf kon nag loolu mënu kon nag gis nañ ne euh, président Macky ba mu fi nekkee ba léegi dara yokkoowut ci njëg yi yi nga xam ne moom la ñuy lekk du ceeb du diwlin du saabu du suukar du meew ah, du luyaas ba ata ata pétrole mu di essence kilogramme gerte yokku na te it li fi nekkoon jóge na fi ba léegi maa ngi xam ay nit yu denc seen bon ñu jàll ji ay seen gerte ñu jox leen ay bon ba léegi kenn fayuñu leen waaye bi mag ki ñëwee ba léegi ku jaay rek ñu fay la ku jaay sa gerte ñu fay la kon nag euh, docteur Cheikh Kanté ñu ngi lay euh, félicité waaye di la dëgëral di la xamal ne sa mbër mi moom mat na mbër jar naa jàppale te itam nag ni ngi ciy sonnee boo jógee yaag sa njaboot yaag sa jëm njaboot ak yaag sa cabinet yëpp yëpp la dalee ci directeur de cabinet muy monsieur Kane ma ngi nii ci sama wet ak ku gën a suufe ci cabinet bi muy man ñëpp rek ngay mobiliser ña ñu la yoreel diine muy Moustapha Guèye muy Imam Sakho muy Mamadou Mahmoud Niass ñëpp ngay mobiliser dugal leen ci loolu ñu di la jàppale ci loolu ay góor ak ay jigéen ak ci sa ceeb cabinet yi ñëpp ngay indi pour dëgëral jëfi président Macky Sall ci wala goo xam ne wala économique social ak culturel ak lépp nag wax nga léegi bourse yi ñim jox jigéen ñi wallaay masula am yéen a ngi fi mag ñaa ngi fi ay bourse jox fay bourse koo xam ne jàngoo liggéeyoo dara pour dimbale la rek bourse yooyu président di joxe wallaay mosu fee am ah baax na de élimaan yi dafa leen di dimbale ci tabaski ak koré xëy na loolu sax depuis colonialiste bi woon waaye dafa yokk président bu ñëw yokk ci yokk ci moom mu ñëw noo seulement yokk ko waaye boole ci imam yi nekk ci région yi ak département yi ak arrondissement yi yëpp nag kon kooku ñun ilimaan yi wax dëgg defal nañu dara kon nag ah foog ñu fa foog ñu sant ko nag ndax nit ki bu la njekk njëkk daal la gën a néew yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne la ko defal njëkk jéem koo fay soo ko mënta fay mu ne nga ñaanal ko kon nag ñaan am nan ko nan ko ñaanal mu nekk fi waaye mu dëgër di ñaaral ñaanal Cheikh Kanté mi itam lii mu sumba nii di ko defal président yàlla dëgëral li muy taxawee ak li mu nar a taxawee yëpp nag bu ko ñëpp a defoon wallaay kon président bu ñu demee ci wote bi dafay dal di jàll ci la yomb yomb yomb waaye moom rek moo ci moo ci nekk ak ñenn ci ñu koy dimbale kon kooku jar naa ñaanal ndax loolu yëpp njëriñi réew mi la waaye njëriñu euh, président Macky Sall ci la euh, docteur Cheikh Kanté nekk guddi ak bëccëg kon yàlla na yàlla jox jox ñu ndam jox ndaw ci li muy wootee yal na yàlla jubal ñu jëme ñu ca kanam yal na yàlla dàqal ñu euh, musiba ak i balaa ak i xeex moom de ñii de bokkuñ ci ñey wax naan génn leen ci mbedd mi xeex leen xeex ban xeex kan ngay xeexal te kat kuy wax ne nañ xeex ak nañ génn ci mbedd mi sa doom du ca bokk sa jabar du ci bokk sa rakk du ci bokk seen doom yi sax nekkuñ fi ñu ngi bitim réew di jàng doomi jàmbur yi nag ku ci ñàkk bopp ñàkk kilifa ñu ne la génnee ci réew mi pour nga xeex ak ah yaa xam. le président Macky Sall lii mu def ci këru diine yi def ko ci diine.

man la ñàkk waaye contrôler sa bopp ci sa biir yi wax ba bu ëllëgee doo mën a am loola naqari dama ne képp ku fi nekk te di këru diine bu mag ñëpp nag yemul parce que yàlla yemalewul ñëpp waaye këru diine bu ne ñii dig na leen te gëm nañu waxam ñi tàmbali na ba genn wàll ga dem na ñii jeexal na ba mu pare kenn ku ci noonu la diggaale ñoom moom président Macky yaakaar naa su ma jëloon sama loxo teg ci kaamil ne maa fi jëkk xam Macky kenn doo ko ma suma ne nee fi gëna xamit kenn duma ma xamna ko lu yàgg yàgg yàgg te bobu do gugul sax ci école primaire ba nek ndok mom ci benn kër ni la ma sa xam ci mom xamna ne lépp luy teranga bu ko jubé dina ci jot defal nako ci ndeyam def nako ci bayam def nako ci dekkando السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi réew mi nu bokk ak diina ji nu bokk tax ñuy faral di yëkkati suñuy kàddu vidéo déglu kàddu yi ci rot yépp ak ci ñi mu jógee muy ligue des imams et ulama du Sénégal ñu gis ne lii nga xam ni wax nañ ko fi lépp ñu xam fi mu jëm ak li ko tax a jóg te président ñii la woowoon bu mata matagul une semaine di leen sa sas ab liggéey ak a wane ni ànd sàmm jikko yi dañuy politique léegi nag ñii moom lii ñu wax nii lan la doon ak lu tax ba mu leen woowee xamalu leen yéen yéen ñëpp da ngeen di politique kon daal kiy wax li ko neex yi moom politiqueul waaye képp ki nga xam ne yaa ngi wax loo xam ne si neexu ko kooka moom day politique kon liñ ciy déggee moo di ne war nañoo xoolaat bu baax suñu toogin te xoolaat bu baax it ñii nga xam ne dañ leen di tudd di di tudd xam-xam di leen tudd di tudd diine ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ci seen i doxin ak seen i waxin kon loolu lan ne woon dinañ ko leeral association des imams et Oulama du Sénégal mané lolu ji dañ ko wara soppi ndax ñi nga ne ño bok ci ñi wax li xeyna du ñom waye mbolen ku bok ci ñom tay wax wax ju melni ak jëf-jëf ju ak palais bi bu association des imams et éléments du parti la ndax parti bi lañ doon waxal parti bi lañ doon euh, la euh, campagne parti bi lan doon waxal wax ji nga xam ne moom koy wax kon association des imams et éléments du parti nañ leen xàmmee bu baax a baax ak association des imams et oulémas du parti ak yeneen association yi nga xam ne ñoom it ay imam lañu waaye kenn mënu leen a ger kenn mën leen a wax loolu leen neexul kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk diine ji ñun ñëpp moo ko ñoo ko bokk ba tax ñu yëkkati suñuy kàddu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.